waxtaan ba waxtaan ci ci ci diine ak ci tagg yonente bi luy tooyal xoli nit ñi bañ mën a delluwaat ci yàlla loolu mooy gàmm dañuy wax ni ki jëkk gàmm mu ngi bokk ci euh, dawla bi ñuy wax euh, al fatimiya dawla al ci Égypte ku ñuy wax Muizzuddin al Fatimi lañu wax ni mooy ki jëkk gàmm loolu mi ngi ko defoon ci ñeenteelu siècle bi ci gàddaay gi muy ñetti téeméeri at ak nangam ci gàddaay gi la fi Faatimi yoona yi nekkoon ñoo jëkk a def gàmm foofu ca Misra gannaaw bi la ci ku ñuy wax al malikul muzaffar abu said doonoon xaakimu dëkk bu ñuy wax irbal ca Syrie ci jamono yi e, jamono yi Salahuddin al Ayyubi kooku nag moo ko gën a yëkkati moo gën a yëkkati gàmm ba jullit yi gën cee jot ñee daan nañu ko def waaye defeen wañ ko daan def dafa weesu seen dëkk waaye nag xaakimu Irbal boobu muy al malikul muzaffar di Abu Saïd kooku nag moo ko jëkk yaatal ci doxin wii ñu koy dox waaye am keneen ku ñu wax Muhammad Rachid Rida dafa wax ni ki ko jëkk def ci Égypte mooy ñu ñu tuddee as-Charakisa waaye ki taalif téere bu ñuy tuddee al-Mawasim wal Marasim euh, benn iranien la mu ngi taalif ab téere boo xam ne ci wax gàmm yi ak màggal yi ci la ko taalif moom dafa wax ni man loolu lépp gisuma ko man li ma gis mooy gàmmu yonent bi moo ko jëkk def ndax daana woor bisu altine bu ñu ko laajee lu tax nga di ko woor mu ne dafay sama bisub juddu moo tax mu ne kon loolu yi moo jëkk a junju ko mu mel ni li dal mbooleem di li dal mbooleem xadaayaay ci diine islaam rek moo dal gàmm mooy ay xilaafaat ay xilaaf ñee ñu ñu tuddee asalafi yoona dañuy ñëw danañ baaxoo sax gàmm gu jot ni soofi yi baaxoo di def gàmm gu jot ñu dajaloo waxtaan ci yonente bi fàttaliku siiraam soññante ñoom gàmm gu jot danañ bind lu yees dal ci kaw ñi gàmmu ni leen di ngeen di def bidaa li ngeen def tegu leen ko ci yoon nii la demee ak naa la demee loolu noonu la suñu borom bindee àdduna suñu borom moo bindee àdduna nit ñi di juyoo jamono bu ne damay wax ni lépp loo gëm ba atan caa xeex nit weddi na ko ba atan caa xeex loolu yàlla dogal kon daanaka eh, xilaafaat yi am ca ña koy weddeeg ña koy d'accord mën naa ni ñenn nag ci salafi yoone yi ñoom dañ koy dàq waaye ku mel ni alxaafid as-Suyuti moom daf cee taalif sax ab téere ci di ko saxal ibnu hajar al asqalaani njiit la ci njiiti sunna yi daf ko saxal lool ndax moom wax ne gàmmu eh, amal naa ko dalil ci sunna daldi ndax yonente bi bi mu ñëwee màddina dafa fekkoon yahud yi ñuy woor bisu fukkeelu tamxarit muy Ashura mu laaj leen ana lu tax ngeen di ko woor ñu ni ko day gis boo xam ni ci la yàlla labale noonu Muusa muy Firawn ci la ko musale ci ab noonam bis boobu dañu koo jàppe bisub cant di def saa bu ñëwee ñun ñu di ko woor yonent bi dañi gënul ñu leen a yey ci Moussa ñoom yahudi kon yéen di leen ko woor ibnu hajar wax ni man loolu dégg naa ci ni ndekete jullit bi ba ko suñ borom defalee xéwal ci ab bis mbaa mu musal ko ci lu mu doon ragal ci ab bis mën naa jàpp bis boobu di def at mu jot mu def ko bisub cant dajale ay nit waxtaan ak ñoom def ay berndeem ngir ne bisub cant la moom mu ni lool yi moom tegtal la ci moom ci ni kon gàmm mënees na koo sukkandikoo ci foofu yi jamono bii nu toll boroom xam-xam yu bare bare bare ñoo xam ni sax duñ leen limaale ci sofi yi ñoom dañuy nangu gàmmu teg ko ci seen déggu fiq ku mel ni ku ñuy wax raatib Annaapolosi moom day wax ni coow li bari na ci gàmmu ak ñii di ko saxal ña di ko dàq daal di ne waaye li kenn nattabliwut nga xam ne boroom xam-xam yépp dëppoo nañ ci ñay gëm gàmmu ak ña koy wedd ñëpp dëppoo nañ ci mooy ne xam yonente bi xam siira bi moom ab xaaj la ci diine xam histoire yonente bi ab xaaj la ci diine te loolu moom ñay gëm gàmmu ak ña koy weddi ñëpp maas nañ d'accord ci mu ni kon bu demee noonu nan jàpp ni dajaloo guddi gàmm di waxtaanee histoire yonent bi dafa mel ni buñ ñëwul ak jaamu yàlla la directement yi daawa la daaw daawa la ndax suñu borom moo wax ni ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana daawa la muy ñu dajale mbooloo mi waxtaan ak ñoom fàttali leen jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ban mën cee jaar pour defaraat jikko yi kon fàttaliku guddi juddug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mel ni euh, li muy tekki rek mooy anniversaire u defaraat adduna bi la dafa mel ni yonent bi bi muy ñëw dafa fekkoon adduna yàqu-yàqet ndax moom la mu fekkoon ca société ba mu ba mu feeñ mooy mbooloo muy bañante di wujje ci ay giir daana ñu def kenn kuñ rey ci sa giir benn nit nga ne giir sàngam gi bala ma bàyyi dinaa ci rey lu ma téeméer mu doon ay xeexoo yu amul yamukaay mu ñëw defar ko ba boole leen nit ñi bokkoo ba danañ ca gis ñaar ñoo xam ni nañu jàppante mooy